dañu ñëw ca bar benn benn cigarette mm. bàyyi tux mm. tuxkat yi nga xam na que ñi ngi ci télé bi waaye Cheikh mm. cigarette ku même nii nii bàyyiwuñu fi ñu nekkoon bu bëgg ñu bàyyi la ko léegi en direct saa yu la neex ñu def ko déggeen ko kon tuxkat yi yàmbaa noonu Thierno Moussa Sow nee na boo ñëwee mu bàyyi la mu bàyyi loolu tux ci ñaata fan ci joni joni non tux amul dem ba samedi. amul dem ba samedi indi si cigarette ma defal la. boo ko mënee jeexal bul fay. cigarette mi ngi fi mu nekkoon rek. mi ngi fi mu nekkoon dix mille. dix mille yamba trente mille. yamba trente mille. sanga sangara trente mille. sangara trente mille. waaw. prix gees nag gees ñaata. gees ba léegi trente mille la. gees trente mille. waaw kon képp koo xam ne que jaaxle nga ci sa nekkin bitim réew koo xam ne que ab ñag mi ngi ñëw bëgg a nangu sa soxna ak koo xam ne ab ñag mi ngi ñëw nangu sa borom kër ñii naan kii nangam it may jàmbat yépp yi mu ci man di doon Thierno Moussa Sow pëlu bayax bu saf sàpp bi yor garab yu saf sàpp yi nekk ci tegtal kon tegtal lii mooy njëriñ bi xewal dikk loraange dak ba ngoog kii ba mhm. gis nga nopp bi waaw wala na wëteen bi doom bi jël na ko boo ko defaree ba pare waaw lii day génnaat doom bi day génnaat waaw léegi boo ci defee li nga ci war a def ba pare mhm. kii bu dee kuy nopp soxnam bañ a dem wala borom këram mhm. moom lay jëfandikoo ah bu ko nommé même borom kër bi du am ñaareel kon Thierno Moussa Sow kon ñu ñëw nag ci beneen bi ko léegi ku bëgg kayit nag foofu bitim réew am ubbee ko nga xam rek Cheikh waaw soo ubbee ko lépp day yomb jeex na kon lii ay buum la ay buum waaw buum ko weer am barke buum nit waaw mais léegi ñaari buum yi bokkul bii ah. dafa mas a yeew dof ah, buum bii dafa mas a yeew hmm. hmm. yeew dof bii yeew dof moom lu mu mën a yàq ak lu mën a defar. <laughs> loolu defe ñu ci àgg. <laughs> Afrique la nekk ah? xam nga mm-hmm. dama lay wax leen ñun liñ jàng. Mm-hmm. yàlla rek moo ñu mun a yóbbu àjjana. Mm-hmm. gis nga buum yi mën nga see takk nit fukki yoon ak juróom muy rëcc mais bu jàppee dootoo rëcc. fii Sénégal ñi nga gis ne du la yàqal ci liggéey mais ci yàq dër lan lay yàqee carrément wax jub bon. ah Cheikh nag. waaw diggante deux mille dix huit. Mm. ak deux mille dix neuf kuñ fi saagawul wax fa dëgg yàlla tekki dara. <laughs> loolu tekki wax fa dëgg yàlla moom. Eh. kuñ fi saaga wut war nga wuti sëriñ ndax ñu saaga la. ndax ñu saaga la. waaw. am comme ñu naan pël lum tuut tuut xam na yu saf sap xam na nu ñuy defee lu bon xam na. nu ñu non da ngaa da ngaa wax ji. Hmm. xam na luy rey nit. xam na luy rey nit waaw. waaw loolu teggin bi la wax kay. waaw àgg na ci beneen bul njuy tegtal ngay def. <laughs> Hmm. mais wax boobu da nga koy dëggal wala da koy weddi. dama koy dëggal. Hmm. man bi may xam li liy tere nit nekk góor boobu ma boobu amagum amaguma treize ans kon que pël bu saf sap bi nga xam ne que day dem ci guy gi fi ñu liggéey nit ñi mu dindi ko ñu liggéey nit ñi ñeen liggéeyoon yàqule ga maam ñu am jàmm ñee indil ko signature contrat yéen xam ngeen na xam na yàlla xam na